mais maram dëmb dëmb dëmb théâtre ma seetaan neex ma. déedéet kay. Hmm, dëmb seetaan théâtre bu neex. Ah. xam nga théâtre français dafa nekk ay théâtre yoo xam ne. lii de finance dafa neex. xam nga lii de a gënoon Kouthia. déedéet kay lii de ah, finance Kouthia moom bàyyi ko foofu non tant que foofu muy toog di lu jot. dara lu jot. na non mais. bu ko mos <laughs> xoolal kii de chocolat bi maa ko jënd fële. soo ko jëndee nii la. mooy yow décoration bi sax dafa rafet. kon moom kay comme que nous en vacances da ngay màcc. non kër la c'est pour toi. ah ñam. c'est bon. Hmm. Hmm. mais foo ko bi. Hmm. c'est bon. Mmh. Mmh. Yeah, c'est bon. Oui, macha allah bii tam foofu nga waaw mais maram. Mm-hmm. jolli jolli na Sénégal ku nekk ngi wax. Mm-hmm. nan Macky waruloon dem mais xam nga sénégalais yi. Mm-hmm. kenn ku nekk doo mën a dugg sa turam wax ko. c'est très important. xam. ko kenn ku nekk am nga loo xam ne. dëgg la. xam-xam bi nekk ci yow yaa koy mën a génn xam nga xam. day tax xam ba ca. Mhm, xam ba ca waaw kon bu leen ci kenn wax dara. waaw nañ leen ci bàyyi rek ñu dund suñu dund. Mhm. xàpp yi def lu ñu saf. ma ñam neex na <laughs> hmm? Hmm. la. <laughs> Ah, garaaw yàggal bu doon Dakar la yooyu ak lay mat. xeetu mbalit gi mar lay taal moo tax bu bëgg a Dakar bu ñu demal ñu defal yëpp mu set mu normal. dëgg la de yow oui. tey bu nekkoon Sénégal nekk wala bon coow li dafa commencé kii. waaw dafa bëri xam nga bul faale bul toppatoo. Mhm. c'est ce qui est important dans ce pays c'est que nit ku nekk da nga war a yem fi nga war a yem. Mhm. ñun on a le droit de voyager partout où on veut. parce que ku ku liggéey noppaliku. Mhm. oui mais mën nañu dem mën nañu dem tëddi. non ah, da ngay en yow a signé ak ambassade Belgique bi nekk fii. Ah, waaw pour ñu jëm waaw ñu jëmam. dama ko waaw mais <laughs> def benn selfie bu yónnee ko waa Dakar. wala ah. defal ni wala Macky ak

dina bëgg taxawal na taxawal na te ba muy moom maram ku mu naqari nga xar géej gi dugg ci xaar ñu yónnee benn Sonko ci Facebook am Sonko Sonko li la naqari teguñu la ko ñu ngi nii dans les Paris te ba muy moom rek <laughs> <laughs> ma ne ko jiital koll jiital maram ma ne ko jiital koll jiital maram